baa ngi sab ci seen biir ñu àndandoo wuy si nabilaay mii di bàyyi laay waaw waa kabaar boobu ñëwagul maam ma maam ku ma ngay yeewu histoire bu yaatu la dañ koy résumé maam ku ma nga yeewu nettali is li mu gént mu mu nettali ko maam Maxa Jóob maam Maxa Jóob ni ko lii nga gént ak nii nga ko géntee noonu laa ko géntee waaye jotagul ñu dawal tuuti bàyyi laay jamaat leen ko ci la fab nag ñëw fii ci saw jant bi ñu ñëwee li gën a yéeme jamono boobu téléphone amul waaye bàyyi laay woon ab jigéenam ni ko tey nag ma bàyyi reer ndax lu mu guddi guddi guddi guddi guddi guddi sama gan yi dinañ ñëw tey li gën a yéeme mooy maam Maxa Jóob bi mu yësalee gëlëm bi mm-hmm. sëy naa limaam dafa daw génn gàttandu leen bi mu ñëwee lu mu def dafa ñëw de daal di yëkkati maam Ngaan Jóob ñii way juru xalifa bi ñi ko Ngaan Jóob ak sing moom li jëntiwul sax mm-hmm. eh, ay way juróom ci maam gaan rek la jublu ni ko ndax agsi nga parce que xam na ni trésor bi moo ko yor maam gaan Jóob moom nag Seydina Limaamu moo ko yar feral ko yar ko ci këram yu lu ñu mën wax suma met temps bi du ko maye waaye pour wax la kan mooy Sëriñ Ablaay hmm. euh, nee nañu maam ngaan maam Maxa Jóob ak maam Kumba Gay jamono bi ñuy dëkk biir Yoof man mag nee na ma ni euh, Baay Libaas Mbuub moo nettali ni Seydina Limaamu bu daan bu daan jugee ci këram mhm. di dem ci julli ji ci jumaa ji fajar bu ñëwee ba néegu maam ku ma goy day taxaw julli ñaar rek ñoom boobu xamuñu woon luy sabab bi dañ ko ko laajee mu ne gisoo leen drapeau bii di folot ci néegu ku ma ngoy xanaa gisoo leen drapeau bii di folot ci néegu ku ma ngoy mu ni cee mu ni bu juddoo mhm. ba yor ba taxawaay ba yor taxawaayu buntu maanaam ba ba ba boppam di laal buntu mu ni man limaam boobaa ku ma ku ma ku ma xamul woon di ma xam moo tax waykat naan euh, limaamu nee na drapeau bii di folot ci néegu ku ma ngoy ay bu jubee nekk sama bu jubee nekk sama yoon wi siiw si ñablaay si ñablaay moomu nag way juróom bu jigéen boobu di soxna ngaan bés dem na ca ngejj ga nga xamante ne fa la Seydina Limaamu bu gàddaayoon dem fa doon taxani ak la fa xew yépp dafa yaatu waaye bi muy ñibbi si yoon bi si la ko bàyyi laay gàttandu yo lu gudd la bi ko Baye Laye gàttandoo bi mu ñëwee ba xam ne Seydina Limam mooy ñëw euh, ndax Baye Laye benn doxin la amoon mhm. ndax ñun ni ñuy doxee nii di inversé wu mhm. Baye Laye daawul doxee noonu nu mu daan doxee Baye Laye buy dox ñaari loxo ànd ñaari tànk yi ànd moo tax fu mu bu dee ñëw foo mënta la ngay xam ne kii Baye Laye ndax doxinam moom dong la beneen bi buy dox dina am niir bu koy tiim fu waaye seen di ko gis jant du ko lakk waaw taw du taw ci kawam hmm. Baye Laye bu daan dox takkandeer daawul ma daawul feeñ ah. Baye Laye bu daan dox ci suuf dàllam daawul marqué moo tax ku ko séen te xam ko di nga xam ne kii sang bi la hmm. maam soxna ngaan commencé daw di ñëw hmm. mais ne bi muy daal di sukk di raam si bàyyi lay hmm. mais nee bi mu bi muy sukk bàyyi lay dafa mel lu xaw a jéego jéego bu rëy ñëw jàpp ñaari mbaggam yëkkati ko ñu waxtaan mu posé ko fa ay questions yi dafa yaatu waaye li ci gën a am solo Seydina Limaamu dafa jël baaraamam bi maam ngaan jóg daal di koy daal di jël baaraamam daal di koy bës ci biiru soxna ngaan jóg daal di koy yëngal ni ko ngaan jóob de sama ngejj goog nga demoon sama sët bi koy dundali ëllëg maa ngi koy def ci sa biir waaw akbar te boobu sëñ soxna ngaan boobu amagul borom kër 12 hmm. ans la am moo jur sëñ Ablaye ñuy génn àdduna xalifa bi boobu 12 ans la boobu soxna ngaan 12 ans la am bàyyi laay jël baaraamam dugal ko ci biir bi ni ko sama sët bii dundali sama garab googu nga jóge maa ngi koy def ci sa biir yaa ma ko war a jur moo tax année bi sëñ laay njëkkee woote ziyaaru ngejj ga hmm. maam ngaan Diop taxaw mu muxtaari dal ko muxtaari dal ko convent bi hmm. soxna ngaan dafa jékki-jékki daal di yuuxu li mu yuuxoo coow li bari li mu yeewoo mu ni jigéen ñi dañu doon yaakaar ni seen seen sëriñ bi moo tax ma daanu hmm. mu ni kii mënumaa daaneel bàyyam Seydina Issa sax mënumaa daaneel mu ni waaye bi muy romb maamam Seydina Limaamu moo ñëwaat fekk fekk ma fi ma taxaw ni ma ngaan daal di bësat sama biir bi ni ma ngaan sama sët bi ma doon wax mu ngi nii ma waral ma daan moo tax kenn amul kuy sëñ Ablaye déedéet ñaakul xam hmm. kooku yëg sëñ hmm. ki nga xam te ne maamam daf koo tuddoon te ñëwagul ci hmm. nag bi mu ñëwee mu taxaw taxawaay bu am solo wax ne yoonu laayeen sëñ Ablaye bi muy ñëw bu bu ko fekkoon ci vingt moo ko yóbbu ba cent dëgg la moo ko yóbbu ba cent euh, sunu way jur nee na ko sëñ Ablaye la ñu xam tey ñu way ko moo daan Casamance la fa nekkoon ci ruwi jàmbar mm. sërif bi moo fa dem rungaleen jox ko Seydi Baye Laay mm. waaw waalo la fa nekkoon ci ruwi jàmbar mboolem quatorze régions yi nekk Sénégal yépp fu ci nekk sëñ Abdoulaye taxaw na fa ni sama maam mooy la yàlla yónni waaye li ci gën a yéeme mm. sëñ Abdoulaye dafa ñàkk ñaan fu mu taxaw ñëpp lay déglu xol baa rafet sëñ Abdoulaye mu ngi ci jës bu sëñ Abdoulaye mu ngi ci xilaas zahab mm-hmm. sëñ Abdoulaye mu ngi ci mawaahibu sëñ Abdoulaye mu ngi ci inal muraada bàyyiwul benn téere si ñëpp laay jotaay bu dugg bu waxee ci yàlla bi bi yàlla mi boromam bu fa génnee dugg na ci njàngum sëñ sa mbindum sëñ sa sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul hmm. bu fa génnee dugg na ci mbindum Cheikh Seydi Hadji Malick dugg ci mbindum Cheikh Sadbu hmm. bindu ci mbooleem bindu mag ñëpp na doog a ñëw ci maamam ne la yàlla bind seenu njaboot rek seenu njaboot rek ngay dem di fa fekk xaadim wallaay ndeysaan waaw sëñ Ablaay boo jëmee yëpp nga fay fekk am na sëñ Abdou Lahad Mbacké wallaay sëñ Ablaay na ko doom hmm. ba pare sëñ Abdou Lahad Mbacké jël jigéen jël jël jël rakk soxna may ko ko muy soxna Nogay soxna soxna Nogay Mbay mooy wayjur sëñ Abdou Lahad Mbacké jël doo jël taaw soxna Nogay Mbay moom hmm. may ko taaw sëñ Abdou Lahad Mbacké muy sëñ Sidi Mbacké tuddee sëñ Cheikh Mbacké Gaynde Fatma doom muy hmm. sëñ Modou Moustapha tuddee sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si mii doom mu ngi def Pikine hmm. bi mu jàngee boobu turandoom toppatoo ko mu war a jàngi la yàlla yàlla def li ko li ko soob tuddee Mansour gay doom di kilifa gu mag Ibou Sakho ñëpp xam nañ ko ci kër Serigne Hadj Malick dëgg la sëñ Ablaye tuddee ko doom Ibou Sakho mu ngi ci kër Massar macha allah sëñ dafa nekkoon dimension bo li ko gars di woowee rek le fédérateur hmm. moo tax tey ñëpp a ñàkk waaw loolu njëkkul tey dëgg la waaw maa ngi ciy dégg sax ay wax maa ngi ciy dégg sax ay wax waaye nag Euh, bul tontu bul xuloo yonent coow a ko jig hmm. xoolal ma film ab Ibrahima ak bu Baay Laay yonent moom fu mu feeñ faaw yonent fu mu feeñ yee ya bañ ko dii noonu ay kàngu ñoo ñaa koy werante ba saam waaye nag ñetteel a gëm naan fa zam-zam am farit wam hmm. Seydina Limaamu maami Sëriñ Ablaye keroog ba mu génnee àdduna nii la géej gi def ker fan ya am ndox mu neex mooy fan ya ruwóog nekkatul biir jëmmi bàyyi laay kenn robul seydi imam géej ga faf neex tàmbalee kër maam libaas yam jàmmalaay ñii di root ñii sangu ñii naan ñetti fan duunal sa moo tax tey sëtam bu tedd bii bu génnee àdduna géej gi arrière ñun xam nañ mbir mi waaye nag olof xaj mbaw na ni ko xamul xamul euh, ay sax waaw ñoo xamul yàlla dëgg la euh, defar nit moo gën a jafe loolu li gën a yéeme ci àdduna mooy defar doomu aadama defar doomu aadama. te ñaata doomu aadama la sunu maam li maam lay defar. ndax am naa sama benn xarit Issa. Euh, suñ benn monteur yàlla na ko yàlla yërëm moo dem sobi croisement Cambérène te jota jumaa ji sama xarit mm-hmm. ba mos a dem këram mm-hmm. weeru koor heure naa la jot mu ne ma dañuy arrêté ba ma pare may wax na ko amee doo ñëw après mu ne ma dëkk bi su heure waxtu julli jotee ñu koy julli te man mii di wax ak yow bi may liggéey foofu da àjjuma jot na ba tàyyi. Mhm. bu une heure de bu heure waxtu julli euh, àjjuma jotee dañuy baare tali bi. donc nga gis ne euh, ñooñu di wax xamuñu dañoo xamul yàlla. xamul xamul yàlla yàlla amul lu mënul. dëgg la te yàlla pour mu pour mu pour mu jaaxal nit ñi. wala mu jaaxal àdduna day jaar day jaar day jaar. dëgg la dëgg la dëgg yàlla Muhammad kan moo ko yónni. yàlla yàlla suñu borom wallaay ñun ñëpp biir nañu. Mhm. dëgg la keroog ba nga waa Màkka ne defal ñu kéemtaan. Mhm. mu mu xëcc weer bi mu xëcc jant bi xaar ko suuxal ko fenkalal ko mm. waxloo mbëtt doxloo doxloo garab la lañ wax ne lii njibar la ni ay jabar la ay ndeysaan mais léegi rek dafa am fu ndaw foo xam ne nii bëgg naa itam mm-hmm. euh, ñu dugg fa tuuti rek mm-hmm. ci bu ñu demee ba tey euh, ñàkk ay kilifa yoo xam ne nii wax naa ko léegi seen bébét moo nekkoon boole ak xam-xam nu ñu fexee mu yaatu bu ñu demee ba euh, ñàkk leen ci circonstance yu demee ni mu demee nii lan la ndaw ñi war a jàngat ci loolu ndax lépp itam defar nañ ko ba noppi bàyyi ko fi. sëñ su ma doon tënk liñ war a jàng ci moom sunu way sunu wayjur Mouhamadou Laye di def ni sërif iñaanul du bodde déedéet jooju waaye du tongoo siisul du xas benn nawleem am na jënnati hmm. sëriñ ndaw ñi liñ mën a doon ci moom liñ liñ mën a jëriñ ci moom tey hmm. mooy taxawaayam taxawaayam ci jekku àdduna ba téye ko. daal di koy wàcc. Sëriñ Ablaay nettali nañ ci histoire. kilifa lijjanti na ay lijjanteem ba am segu cent millions ci jamono boobu Senghor a fi ne ni ko lii yaa ko moom sa signature moo des mu gàntal ko ci jamono boobu xool doylu boobu te boobu jamono boobu mu ngi dëkk ci sa ci sàkket waaw xalaatal ku dëkk ci sàkket ñu jën ñu indi la segu cent million nga rejeté ko mbooloo ngor googu hmm. Serigne Ablaye Malika am na suuf su fa nekk bi ñu ko xeexee ba Abdou Diouf jox ko lépp mu téye kayit yi ci loxoom mënoon coo def lu ko neex mu woo waa Malika yëpp ñu leen jël leen ngeen defaru ci loolu dafa mat bàyyi xel macha allah macha allah ni mu jekkoon àdduna hmm. bàyyi te loolu loolu azaka la ci ay jëfam beneen bi ci yaatu sëñ Ablaye boo demee Malika ñi dul laayeen sax ñoo ko gën a gëm ñoo ko gën a bëgg ndax taxaw bu mu leen taxaw. sëriñ Mamour démb mu ngi nettali. neen daa toog ci kër gi ñu yàq añ indi añam moom. am ci waxin ku xaw a wéradi soli sagar ñoo dugg ci kër gi ñu woote añ mu jubal fi sëriñ bi nekk sëñ Mamour nee na ma ne ko déedéet demul fële sëñ Ablaye ni ko waaye bàyyi ko mu ñëw mu ñëw sëriñ bi. sukk bokk lekkandoo ak moom bi waa ji lekkee ba noppi mi sëriñ Ablaye man de damaa romb xam ne yow nitu yàlla nga moo tax ma jàdd fi te ay sagar la sol allahu akbar moo des si boobu hmm. bi mu demee ne si ma sëriñ Ablaye yëkkati xaalis ba jox maam ni ko jox ko te ñii nag dee leen maytu hmm. Hmm. lu la wóor ndax martaba bi ma des ci yàlla kii moo war a ñëw bokk ak man ñam jox ma ko waaw wakabar xoola jàngale boobu wax jàngale jàngale bu doy waar xoola jàngale boobu laay ndaysaan kon yooyu jeunesse bi ak surtout jamono bi ni mu yàqoo ni mu yàqoo ak ay mbir yu bëri yoo xam ne Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul waxoon waaw haza zamanu ahbaxu zaman li kasratil isyaani fil buldan hmm. jamono la boo xam ne ni valeur yi dañu dañu perte suñu ay valeur ay valeur kon ndaw ñi il fa que ñu delluwaat ci mag ñoom nga xamante ni sëñ Ablaye am na quatre-vingt-quinze ans zéro faute. wallaahi dañ naan Alaaji Abdou cent ans zéro faute. Hmm. sëñ Ablaye Thiaw quarante quatre-vingt-quinze ans zéro ci diine ci mbokk. Hmm. ci askan. Hmm. ci deret lu mu mënti doon amul lu ko nit di duutee baaram. déedéet kooku référence macha allah foofu laay ñëwee rek ci référence googu nga xam ni wax nga ko waaye itam euh, ñu ngi gis boobu ba léegi itam internet yi ñu ngi réagir bu baax a baax a baax di kontaane waxtaan bi waaye itam euh, di la jaajëfal bu baax ndax kàddu yi am na solo ak li nga xam ne moom nga fi yëkkati sànq ñi nga xam ne itam euh, ñoo nekk ci live bi comme ni ñu ko daan defee rek ci kanam tuuti itam daanu fa jël ay nit rek defal leen ay teranga may leen kenn ku nekk fukki junni xam naa bu ñu wéyalee ba ci kanam rek léegi nag dañu bëgg rek nga yóbbu ñu faneen bu ko defee itam ñu ñu ñu ñu parce ko laataa ñuy dalal suñu beneen ndaanaan bi nga xam ni nee naa taala moom moo ngi fii moom itam bu ñëwee euh, gën a euh, waxtaan wi ak ak zikkar yeeg yu ni mel walaay ma waar waa Soodaan lu ngeen bañe baay li bas daane mu doon ku firee di laaji ko xam te topp ndigal du ñeetaani walaay Soodaan ndeysaan da ngeen xamul mm. li nekk ci weet di ab yónneen mm. du jub yaay doon matum xam bokkaay faniraane bilaay ba nabi feeñee fa màkkate luy mm. arab dajaloo ba jiital mbër te mooy Abdoulaye mu ñëw di ko laaj ba xamee sayyidi saxalayni waaye mu jébbalu daal ni waa Xaybar na ñëw jox ko seen ruuy ku bañ jiwaay ëllëg yaay doon matam xamukaay fa niiraani bëggoon bu libaas ñëwee soodaan ni bur ma yónni ci yéen na ngeen am xel te gëstu mbiram a réer di foñ diine waaye su doon lu ma neex lu fi kilifa te yor mbooloo na yónni ndawam ñu gëstu ci yoon ne nu bàyyi laay ba xam mooy seede saxalay ne waaye sëriñ Ablaye sunu sang ba dem na walaay kon daañu gis ay moo gisaat yu bawoo ca buur ba ko fal sëriñ Ablaay sëriñ fay siis dapee bayoo layoom baag lu bul daane foo tey ma jox la njukkal daway lala waa nga may ak laay sëriñ foo tey ma jox la njukkal daway lala waa nga may Abdoulaye sëriñ foo tey ma jox la njukkal daway lala waa Baay Abdoulaye Serifo tey ma jox la njukkal joxu la njukkal loxo ya ca kaw sërifo tey ma joxu la njukkal sama ma waxoon ni yaay siiwal tariixam woor na bul daane waaw waaw waaw waaw ko te kañ li may may ab lay mbër la jógel bu way géeram mu dolli ko mbir yu baawaane alayhi salli ya waawa summa salaamu salli ya mawla ya ca dalay songo ba dootoo tal bay daaneem alayhi salli ya waaw waaw salli ya Abdoulaye dama koy way ba ba may dee yàlla moo ka wayloo te lii du way ka mooy sama cër xalifa samsu soodaa rabbi salli wa sallim julli ci xayru naa saaba yaa ki ñoñam ak njaboot bay Abdoulaye Thiaw Abdoulaye dama koy way ba ba may dee ma ka wayloo te lii du way ka mooy sama cër xalifa sam suso loxo ca kaw way ka mooy sama cër xalifa sam suso daan way Sërif Abdoulaye mooy xol gi di ci naan ma man di kuy leer ma di way Abdoulaye Khalifa Samsu Soxdaan way Serif Abdoulaye mooy sama lengi or day garante ci man tey sama ndaxante leen ma ko mooy xalifa Samsu Soodaan waalo waalo yo ñoo xam Serif Abdoulaye ñoo ko yóbbu ba nay reeki mbokki ne doom njool ma dem di leen bégal ci Samsu Soodaan gor la gar mi la yaaram la man Abdoulaye gor la gar mi la yaaram la man Abdoulaye gor la gar mi la yaaram la man loxo ca kaw gor la gar mi la yaaram yaram la man Abdoulaye jëf ci Seydi Limaam jëfal loxo ca kaw jëf ci Seydi Limaam jëfal Abdoulaye jëf ci Seydi Limaam jëfal loxo ca kaw jëf ci Seydi Limaam jëfal Abdoulaye jëf ci Seydi Limaam jëfal na jëf ci Seydi ma njoon Babacar gërëm eh. Abdoulaye du moroom xalifa Samsu Soda jërëjëf jërëjëf am nañu mbégte ak contentement bu baax a baax a baax a baax defe naa lépp rafet na am na benn internet bu ñu bu ñuy wax nii euh, bëggoon naa xam lool lu waral ñu naan euh, Issa Ruuxu Laay waaw xaw ma nag euh, ba xam di nga ci mën a indi ay leeralam waaw waaw waaw ay ci bismillah laataa ñuy tàggatoo ak yow Seydina Issa Ruuxu Laay yàlla nee na Isa rayu leen ko maa ko aj moom Seydina dem ba feeñoon ci Israël dama ko niral ci yéen ndaka ngeen salab du moom moom Seydina yàlla nee na wa maa xatalahu wala kenn salabahu walakin shubbiha lahu yàlla nee na yàlla Isa ko daajuñu ko yàlla na li fi nekk mooy dama jël jëmmam nirale ko ci yéen yéegal ruwam day wàccat moo tax yonti yàlla yonti yàlla Muhammad wax ni hmm. anna Isa lam yamut wa innahu la raaji'u fi ummati xabla yawmal qiyaamati yonent yàlla Muhammad nee na Seydina Isa kenn reyu ko te deewul te balaa àdduna